addiye ji nga xam ne at mu jot waa daaru salaam dañ koy dajale jébbal ko ki fi nekkal Serigne Touba daal di yeeslu ci moom addiye jooju ci atum 2020 bi jébbal nañ ko ci talaata ji xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñu xayma ko ren ji ci million millions 130 mille 900 francs Serigne Cheikh Anta ñëw fekk xalif général des mourides ci kaw Kaolack ànd ak njabootu ko borom gaawaan gi ñu ñëw jébbal addiye jooju ni nga xam ne at mu jot noonu lañ koy defee xalifa général mu Mourides. ñu ngi yeesalaat seen pas-pas di yeesalaat seen wu laxasaay lii nag xeeb nañ lool li nu andi nag xeeb xeeb nañ ko lool de xeeb nañ ko lool. bu doon dërëm itam. est-ce que fa mu ko def ay milliards. alhamdulilah alhamdulilah. gën a gën gën a gën a dégg lool ndax euh, euh, euh, jombali leen dara ci lu baax tey ak ëllëg loolu mooy sunu mooy moo moo nu war suñu digganteeg sëriñ bi alhamdulilah digganteeg yéen waaye nag waxtu ne maa ngi fàttali ne ci yéen la bokk foofu laa jóge woon mu ne waxtu wu ne dañuy fàttali ne ci ñun la bokk ndax foofu la jóge woon loolu gën a sant bu rëy mooy mooy moo moo moo dolliku ci li mu a ci li mu war a sant. sëriñ bi daa wax ne. jataay bii nga nuru lu gàtt ci yow. ma nga la cay waxaat rek la maam Cheikh waxoon sëriñ bi. ba ko fekkee gaawaan. da ne woon amoog jot. te yow foo def at ak foo def senn saa ñoo faj aajo la tax a ñëw fajal say fajal suñu aajo rek tëbal la tubaat nee na yow it xam na ne amoog jot te loolu rek a fi nekkaat nee na nga faj aajo yi rek. <laughs> nee na foofa rek dañ koy delloo. noo ngi sant sëriñ tubaab bu baax di sant Serigne Mountakha bu baax dañ fay ñëw ci turu Darou gépp li ko tàmbalee ci sëñ Mor mi xalifa maam Cheikh Anta ak Serigne Mbacke Anta rakkam ak njabootuk Alaaji Sëñ Tàkku gépp ak njabootuk maam Cheikh Anta gépp ak ci turu Serigne Abdou Khadir Serigne Jili ak sëriñ Abo rakkam ak njabootuk Serigne Modou Mamoun gépp ak Darou Salaam gépp eh, bi ñuy ñëw itam. danoo dan doon dañuy ñëw di yeesalaat sunu pas-pas di yeesalaat sunu njëbbal bi nu ñëwet sëñ bi jiitu nañu ci loolu wax nu ne maa ngi yeesluwaat di leen yeesluwaale di ànd ak yéen itam ci yeeslu bi bin fi mujjee daaw lu nu sax di joxe ab lim joxe addee di ko tudd gënalu nu waaye réseaux sociaux yi ak seen yi ngeen yor tax na ba kenn mënatu koo nëbbu waaw andi nañ daal lu ëpp lañ andi woon daaw andi nañ cent quatre-vingt-onze millions yu teg cent trente ak neuf cent francs loolu lañ andi ren te xeeb ko lool di ñaan di ñaan yàgg ko andi nag te ku yàgg fi fekk sëriñ bi yàgg ko ko jox lool nan ko daan def nag lan ko daan def ren dañ ko gën a bëgg woon koo suturaal moo tax defuñ ko ci gaal waaye dañ ko daan def ci gaal boole ko almet waaye len almet ga moom lam ci dem ci daan jëriñ mu ngi koy jëriñ ba tey bu ko sëñ bi lakkoon tey jii nee nu lakk naa ko bu subaa nu tàmbaliwaat ñu andi ko kon noo ngi sant ñëpp taalibe yi nga xam ne ñëwoon nañ ci woote bi wuy si ñëpp sëñ bi yëg na ko sëñ bi sant na leen sëriñ tu sëñ Muntaxa mooy sëriñ Tuubaa te fu taalibe nekk suñ Tuubaa ngay liggéeyal kon nag taalibe yi li ñu doon liggéey nañ xam ne agsi na ci sëriñ bi toll na ci téeméeri million ak juróom-ñeent fukki million ak benn ak ñaar fukki junni euh, ak fanweer yu tegal jërë ngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp bu baax. addiya ji nag daaw ñu ngi ko xayma woon ci 172 millions de francs CFA ren jii ñu yokk ko yóbbu ko ba ci 191 millions 130 mille 900 francs.